oh là là quel match incroyable ñu li tax ñu bëgg football ñoo ko xam maak su may morom parfois bu ñuy laaj lan moo tax ngeen di sonn ci football nii mais yii ni mel moo tax yi ngay yëg ci yii surtout de situation yi événement yi ni mel loolu ya tax match bu neex ba ni mel salaam gars yi bëgg naa leen nuyu ko ci nekk seen tur ak seen sant y avait des hauts y avait des amoon na bànneex am naqar tristesse oh là là Toni Kroos malheureusement dafay arrêté mais aussi Carvajal li ñu naan xobe booy wër tur boobu ba yegg si Carvajal teeral nga. mais coachu Espagne bee naroon rey Espagne ci ni mu teel a génnee kooki di Nico Williams ak Lamine Yamal bu ñu ñàkkoon match bi cool yëpp ci ñoom lay dem ñi daan yóbbu bal bi flèche yi doon yóbbu bal bi boo leen génnee da nga jàpp ne ci 1-0 yooyu ngay yem te doo dem poro naroon ngaa sonn as tuut mais heureusement ba mujj ngeen a gagné Merino génnee la ci situation boobee moo la génne ci ci dàq na gis naa avant match bi di jeex yenn réaction amateur de foot c'était très danoon compliqué ci yow. mais un match boo xam ne ni Olmo def na ko man tey gone gi daf ma impressionné yàgg naa gis talent bi ne ci moom mais lim jot a football tey entrée bu baax la def mais aussi tey triple rôle la doon joué nag ba ñoom ko Williams ak ñoom Lamine Yamal génne amuñu woon joueur bi nga xam ne moo leen mën a yóbbul bal bi mais aussi gis nañ Olmo boo xam ne nii euh, da doon wàcc def repli défensif di jàppale latéral bi yamaatuñu foofu di ñëw ba ci milieu terrain bi jël bali di dem di créer occasion di def ay passes yu exceptionnel ba ci bii bi nga xam ne euh, Merino jot na koo dugal délivrer Espagne génne leen ci côté Allemagne nag Leroy Sané ci début match bi la passé complètement à côté coach bi xamul lu ko dugg ba mu titulaire loo ko mais après ba mu demee ba conscient que ni Wirtz mii moo war a titulaire football ba mu ko dugalee Wirtz wane li tax mu titulaire def un grand match moom it mu ngi noonee Füllkrug il était présent ci surface yi moom ak Havertz waruñoo bokk même terrain moom ngay teg mu wëyal Füllkrug malheureusement. dugalul mais gis nañ ni mu doon sonalee défense su Espagne bi di jéema forcé ngir mën a dugal malheureusement pour lui il a pas marqué mu doon match boo xam ne ni gis nañ un Jamal Musiala il était présent lui aussi il était partout mais malheureusement aussi pour lui day mujjee toog Lamine Yamal Nico Williams ñoom ñooy qualifié à demi-finale ci Euro 2024 bi nga xam ne match bi neexoon na yëngu woon na tegu na ci temps kon nag kookee di Espagne day dem demi-finale ñu ngi xaar Allemagne ah, kookee di France ak kan moo ci nar a ma ngeen xaar ci yi kan mooy seen homme du match ngeen ko ñu waxtaanee ko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 même bu weer bi tojee mën nga ñëw ñu defal la essence ci njëg bu mucc ayib en même temps aussi boo leen ko bëggee réparé ba ñu am nañ suñu réparateur ci bunt bi mën nañ leen réparé seen téléphone. ok échange bi mën naa ni euh, dañ lay jox portable bu clean boo xam ne. bu lay jox venant bu set bi bu la neexee ñu jox la sele si yow lay def batterie lay doon authentique lay doon. te yaa koy defar réglage yi mise à jour et tout. Ah, ñoo koy defar dañ koy réglé lépp